mu di gàmmu na Sangaku ñu jàpp ko samedi fukki fan ak benn ci weeru juin 2022 ñu bàyyi ko kàddu gi rek gannaaw bu mu jëlee ndigal ci waajuram sëriñam Seyda Roqeetu bintu Cheikh Ibrahima Niass ñu bàyyi ko kàddu gi. alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim mbokk yi ñu déglu di ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àddina ngi amati mbégte beneen yoon di jàkkaarloo yéen ci. Eh, di leen jagleel nuyoo ak ziyaare ci àjjuma ji gannaaw ndigal sang bu tedd bi Cheikh Ruqaya wax ne ñun nañ génn jàkkaarloo ak nit ñi def appel ci turam gannaaw boo xamee ne ñi xool internet ñu ngi dégg appel boobu mu defoon di wax ne mu ngi oon nit ñëpp jullit ñëpp fu ñu mën a nekk ci bés bi nga xam ne bàyyam moo ko digaloon liggéey ci yoon yàlla mu sos ko pour jagleel ko jullit ñëpp ci àddina rawatina mbokki taalibe yi nekk fële ci Amérique nga xam ne at bu jot bu ko Seyda jàppee dañ ci daan dimbalanteeg moom ak ñi nekk ci Espagne ak ci Brésil ak fu ñu mën a nekk ak fii sax Sénégal ci ndakaaru gi gën a jege ak toppam mbay mi ñëpp Seyda wax na ne oo na ci ñëpp mu ngi sàkku ñëpp teew ci waaye mu ngi sàkk ñëpp jàppale ko ci bés bi ci li ko yewenal yëpp. bopp mbooloo mi nga xam ne ci Seyda Roqeya mooy seen bunt ci Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass muy waa Medina Sangakoy dañ ma désigné woon comme seen muqaddam comme seen njiit ci yoon wi ci xadara bi gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi gërëm Maulana Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne lu do rek moo ñu ko def lu ñu am moo ñu ko may lu ñuy wut ci moom lañ ko yaakaar ñu ngi koy gërëm beneen yoon waaye nag ci buntab xalifaam bu tedd bi Cheikh Mahamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne tey ci tey moo nekk ci kursul kabir laa koy tuddee ndax jàpp naa ne man gisuma ci ñii nga xam ne ñu ngi fuuglu nekk ak ñoom ci àddina ci sàkku ci suñ borom mbaax ak taranga ak taranga ko jiitu Cheikh Lislam Cheikh Ibrahima Niass kon ki toog toogaayam ñun jàpp nañ ne moo toog ci kursul kabir bi mooy nuyu Seydil Imaam te buñ ko nuyoo mooy yaatal nuyoo bi mu dem ci topp mi ndax mu jiite jumaa ji jiite mbooloo mi su ko defee bu ñuy bëggee yaatal nuyoo bi gannaaw usra Cheikh Ibrahim Niass bi dañuy dugal imam pour yaatal mu dem ci usra bi gën a yaatu mooy toppam maanaam yi di wax ne Seyda Roqee moo ne ñu toog jàkkaarloog àddina bi yëgle bésam bi oote ko di wax ne mu ngi sàkku ci mboolem jullit ñi fu waay nekk fu mu mën a doon su ci amul benn ngant mu ngi sàkku teewaayam ndax yiw ak teranga yim yaakaar ci bés boobu di ko ci séentu dafa bëgg séddoo ko ak mboolam jullit ñi naaw boo xamee ne jiital na Seydil Khalifa Cheikh Mahmadul Mahi ne oote bi su fi baayam kon baayam moo koy oote moom mu nekk liggéeykat yi baayam ci liggéey boobu kon bu ko waree oote tey dafay wax ne Cheikh Mahmadul Mahi mooy oote jotaay bi kon nag ñu ngi oote oote bi ci tur yi Seyda Roqee waaye ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp mën a ñëw ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp am lu leen yóbbu ku nekk xam na ne jamono yi demalal tullu bari su mooyee dem jumaa ji ñëw dematu ci jotaay yu bëri waaye bés bi dana ko lu dem toog ci ñu ngi yaakaar alkalifa teewaayam ñu ngi yaakaar seydil imaam teewaayam ñi leen yëgal bés bi nga xam ne la 11 juin la fële ci Médina Sàngako nekk ci département de Foundiougne ci arrondissement bi nga xam ne Toubacouta fa la nekk alors ñu ngi woo ñëpp góor jigéen mag ndaw fu nit mën a nekk ci àddina te mën cee teew rek ñu ngi sakku sa tew Seydou bi mi wax boole na ci ne kep ku ñu mëna jappalé pour bës bi réussir it mu ngi wax ne bëgg na nga japp ci pour bës bi mel ni nga xamné ne la bëgg mu mel kon nak ñu ngi wax ñep na leen bës baa ngi noonu la 11 juin feulé ci Medina Sangago programme mi ni mi démé ñi commentaire suñu carte bi dañ ci ñëw mooy joxé nañ programme jangam alcorane mi te commencé na depuis ay semaines. ak jàng asmaa llaahi al-husnaa yi tur yàlla yi ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu yëpp dañ koy def ci yéene Mawlana Cheikh Lislaam El Hadj Ibrahima Niass moo ñu gën a jot yéene moo ñu gën a mën a ñaan nañ ko jàng rek ci yéeneem euh, jox ko ko mu euh, taxaw ci suñ buntu suñ digganteeg suñ borom loolu daal ci gàttal mooy oote bi. fële muy xewee ci Medina Sangago ku ci bëgg a ñëw wala xamut place bi wala mu soxla benn information ci numéro téléphone yii lay oote. Euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf si sa Cissé Niang fàttali na mooy euh, président Ansaarudine département bu Kaolack euh, mu loon yëgle loolu comme ni mu ko waxee Seyda Roqe digal ko jox ko ndigal. mu yëgal mbokki taalibe yi rawatina mbokki julli yëpp mi ngi amee ca Medina Sanga ko nekk si Euh, commune bu Touba Kouta euh, département bu Foundiougne arrondissement bu Djilor jërë ngeen jëf yéenay liggéey fay du nay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy